ville de Rufisque tey dañu ñëwoon fii euh, ànd ak euh, Babacar Ndiaye président euh, Tëngéej FC man ma représente fii le maire de la ville de Rufisque mu yebal ma fii ma représenté ko ànd ak tamit nag responsable maire bi yëpp ñu ñëw nag saytu saytu liggéey bi liggéey bi nga xam ne jot nañ ko def fii si maire bi parce que Tëngéej FC dafay dugg si ay compétition internationale te convention internationale yooyu tamit dafa am loo xam ne ñun moom nañu ñun daf ñu tënk pour ñu mun a accueillir des matchs internationaux dafa am lu ñu war ci stade bi ay travaux ñu koy tuddee ay travaux de mise en norme ndaxte ñoom dafa am façon gis-gis boo xam ne moom nañu moom nañu retenir pour bépp stade boo xam ne dafa war di abriter ay matchs internationaux loolu lañ doon xool tey gis nañ ne am na ay travaux mais nag c'est pas des grands travaux c'est des travaux de réhabilitation des travaux de réparation des travaux de correction aussi pour une bonne mise en norme euh, du stade Ngalandou Diouf loolu xool nañ ko d'accord nañ si ak euh, Babacar Ndiaye te ñu nit dañ ci bëgg a profité tamit seet lépp loo xam ne yàqu na ci biir stade bi ñu mun ko defaraat pour que au-delà de Teungueth FC tamit su amé ñeneen ñoo xamné dañ koy soxla ñu mun ko di utiliser ndaxte dañu bëgg suñu stade bi nek un stade de euh, référence. donc ñun Tëngéej la ñom am bu ñu booloo rek mën nañ am té li ñuy wax tamit Tëngéej du Tëngéej FC kese euh xalé ngi liggéey amna pôle élite pôle élite bi moy les meilleurs U16 les meilleurs U17 les meilleurs U18 Seigne Saliou Dia Alsane Dia Youssou Dabo donc xalé yi ñu ngi mag nañ leen patientel d'ici 2 ans 3 ans lolu rek c'est minimum 120 emplois mairie beeg toutes les bonnes volontés ku si mënti jàpp daal boo amee benn plante fleur sax ñëwal nga nga jàpp si lii c'est l'affaire de tous les Rufisquois